voilà léegi nag euh, temps yi moom ñu gis seen maison de production bi dafa yëngatu de temps yi waa Evan Prod yéen leen dal ba da ngeen dëgg affaire jàmm. Euh, bon en fait Evan Prod man. Euh, mën naa ne gëj naa liggéey ñoom sax jamono yi ñu toll nii bon maa ngi liggéey ak d' autres maisons de production moom laa la wax maa ngi liggéey ak ñoo xam ne eh, pitim réew la di liggéey aussi ñu mel ni ak ñu nekk Sénégal ah ñu mel ni Raf production ah waay waay maa ngi liggéey aussi ak euh, ak qui euh, bah, production bo xamné en fait même sans limite nek na ci partenaire ak Promobile et voilà d'autres d'autres partenaires quoi affaire maintenant pour revenir à Idol bon Idol ñom ñi connaît def sen liggéey parce que dégg na ñi ngi ci euh, kii nu de tudd infidèle ah ngi ci mars bon Idol bi ci bopam sax bind nañu huitième saison bi nga xamné ah ci liñu wax ah nee nañu mi ngi ci yoon wi ah donc ñun ñi koy xaar xam nga ñun moom. dóor mu daanu la ñu xam bu ñu ñëwee tegal ñu ñu def ko nawoon fawoon rek. mais mais yéen idole dañ leen ameel xaalis moo tax euh, production bi bloqué. Euh, bo am na loo xam ne nag bugguma si dugg ci trop trop. parce que ah, mais dañ leen ameel wala ameeluñ leen. ma ne gis nga liggéey bu àggul buñ la ci deseelee xaalis yoon la foofu laa mën a am du ma dugg nag ci ay détails dama ne gis nga tey ji ku la joxoon këram pour nga tabax ko nga liggéey kër gi ba kër gi taxaw. waaye yow raaxa goo ko peinture goo ko kon jaadu na ñu am lu ñu la desel mais man maag idole bu ñu waroon jàkkaarloo ma war continuer li des ci idole dinañ ma fay liñ ma amel lu leer laa la wax loolu mu amul sëkki sakka mais nag euh, ni mu demee aussi c'est normal parce que liggéey bu àggul nit ki desel la ci <laughs> mais kooku. attends yéen seen contrat da ngeen ko signé woon pour ñaata saison ba tax xaalis bi war a des te tant que àggalu leen ko duñ leen moom laa la wax dañu signé woon contrat pour sept et huitième saison. waa def nañu set bi huitième bi àggagul non moo tax gis nga gis nga yenn coow yu bari sax déer gis nga man pour man àddina da ko jeex jaru gis nga man xaal xaalis man file la may fekk fi may bàyyi man su ma diggante ak idole dara du koy yàq mais bu ma amee lu may régler ñoom damay dem régler ko te du ma jaar sax ci réseaux sociaux te luñ ma amee àlla kulli alin bu ma ko bëggee te mu nekk lu ma lew lu ma moom dañ ma koy jox amul sax sikki sakka c'est que nag xam nga des fois euh, nit ñi ñoom ñooy yàkkamti rek wala boog ñu bañ a diagnostiquer situation xool di nga am li ci biir mais li ma la wax lu leer la dama la ne ki ngay liggéeyal ngeen digg benn liggéey liggéey ba àggagul kooku bu la deselee xaalis jaadu na c'est que nag bon euh, li li am mooy ñun ñëpp ñu ngi regretter liggéey bu dem ba ci biir taxaw mais mais li ko mais mais mais xoolal mbas mi coronavirus bi ku ne woon dina donc gis nga àddina aussi nit il faut ngay xam ne euh, jamono bu ne ak la cee xew nit ki danaan lii de fii laa bëgg mu àgg donc nii laa koy doxalee mais est-ce que dana demee noonu loolu ci yàlla rek lay dépendre bon xëy na ñoom it li tax ñu aj ko nekk ci leen bon ñoom ñoo xam mais man man du ñu ma tardeel du ñu ma taxawal du ñu ma téye parce que maa ngi ci yeneen produit maa ngi liggéey di xam nga di di ñàkk suma live di ko gagné donc man du ma du ma toog ci kenn ku ma ameel te liggéey la ñu waxee woon sotteegul ma toog di ci wax wala di ci taxaw wala wala mu may téye xoola man xoola avec ou sans n'importe quelle production damay dem ci borom bi wa parce que suma métier dama ko bëgg dama ko gëm dama moi je suis un des rares euh, produits de l'école nationale des arts en dehors de 40 ans d'expérience j'ai fait une formation académique qui m'a fait atteindre un niveau le plus élevé n'est-ce pas dans le cadre de la formation d'acteur comédien donc tay suis man damay former man damay former nit ñi nga xam dañu bëgg acteur ñu ñu encadrer donc gis nga métier qui est koy jang da nga koy maîtriser da koy mën bu ko defee yow xool dañ la ciy soxla te ñi ci gën a kawe ñoom lañ ñoo la ciy soxla tey jii les productions étrangères bu ñëwee mais ñun suñu genre la ñu soxla parce que ñun mën nañu ci langu ko ci barme bi mën ci langu Molière bi ba ba pare itam xam nan la ñuy interpréter parce que li ñu jàngal américain anglais allemand ci wàllu maanaam technique codifier sur le plan de l' interprétation ñun dañ ko jàng mu mel ni comme nga dugg université wala nga jàng médecine métier loolu la métier da nga koy jàng maîtriser ko bu ko defee kenn du la ci téye ñi ma defal formation ñi ci ëpp ñi ngi à l'étranger ils gagnent bien leur argent c'est man dama gëm sama réew voilà moo tax ma toog gëm Sénégal même buroon ñaar dërëm laa fi am ñoom ñu am ay millions amul solo damay toog liggéeyal suma réew voilà voilà. kon su ma déggee yow idole amelu la xaalis parce que huitième saison ngeen waxoon te yéen ngi septième saison donc tant que àggul a monter. waaw loolu moo logique cest gis nga àddina àddina dama ne gis nga àddina da ngay xool lu jaadu liggéey bu fekkente yow da nga ko diggee ak nit liggéey ba àggul mu am lu mu la deseel dama ne jaadu na waa nit nag xëj na mën nga wala itam nga bañ a jàpp ne dogal dafay am ci àddina donc nga bañ a euh, comprendre nit ki wala nga bañ ko muñal wala nga yàkkamti jot sa xaalis mais nag moo man de man de yooyu du ma tardeel man yooyu du ma téye wax dëgg yàlla comme maag moom la ñu waxoon la ñu even pour mais damay toog rek muñ gëm yàlla ba a jiital alal ba a yàq tamit diggante ndax kóllëre ginnaaw lay féete comme dañ daan bokk di liggéey ñu ñuy fay muy mat bu ñu demee ba mbir mi taxaw xamuñu lu ko té te jamono bi ñu gis Covid 19 bi am na fi leen am na fi leen amaat na fi amaat nañ fi te nag euh, nit ki boo nekkee ci touche bi mënoo xam lan ne ci biir waaw donc man euh, dama naan sumay partenaire lañu euh, ameel ma xaalis du tax ma yàq suñu diggante damay toog leen seetaan parce que gis nga nit. lépp loo war a lekk bu àpp ba jotul doo ko lekk lépp lu baaxul ci yow jigu la bul ñaan yàlla mu agsi kon ñun ñëpp nañu bokk gëm yàlla ànd ak dal ak tekk ak tey di mu ñëlante mais aussi ku nekk itam ngay jox sa moroom àq parce que nag nañu waxante dëgg boo man vraiment damay wax Ivan Prod ne leen nañu góorgóorlu li ñu diggee woon ak nit ñi aussi et ñu góorgóorlu ci parce que góor góorlu tam mooy tax doon góor voilà donc man damay ñaax et ñi ñu séqal ñu am dal am muñ waaye ñoom it eh, ñu bàyyi xel doomu aadama yi nga xam ne ci métier bi la ñuy dund loolu am solo la parce que ñëpp aussi amuñu moyen euh, amuñu muñ euh, amuñu aussi euh, kattan wala pexe toog di xaar loo xam ne dañ ko yaakaar te jotuñu ko parce que ñenn ñi nag dañuy saalita ah, mais gars yi bàyyi leen saalit bàyyi mais idole aussi xool góorgóorlu leen avant avant projet je veux dire leen parce que avec idole àddina moo ko soxla idole lépp luy lu fi jaar xoola idole dafa ñëw xool teg ko à côté daal ne man xoola bu ma soxlaa ñëpp ñàkk kon idole bi àggale leen ko ñun gis nañ fi euh, dégg nga am 24 heures chrono gis nañ fi ay waa waa waa prison break ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñun idole moom mooy suñu 24 heures chrono mooy suñu prison break donc bu leen ko yàq àddina da ko soxla et puis c'est le patrimoine culturel national liggéey leen ko teg ko ci yoon yàlla def ci xéwal ak barke. et ñëpp gis ci seen bopp muy àddina muy ñi ko seq muy ñi ciy liggéey yàlla na ko yàlla dogal. jaa ngeen jëf gaa yi mbir mi loolu rek la waaw.